Assalamualaikum wa senegal ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen ziar di ñëwaat ak yéen euh, ci benn waxtaan boo xamante ne dañ koy jagleel équipe nationale du Sénégal coow li mu ngi bari yenn patriote yi génn nañu di wax ne équipe nationale du Sénégal lu tax takkuñu brassard bu noir lu équipe nationale du Sénégal tweet bi rek gaay jàpp ne doy na tweet bi doyul les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal match bi ngeen doon génn muy match officiel après bi nga xamantene ni rey nañu suñu ay doom seeni frère ñu faagaagal leen rey leen ci loo xamantene ni xeex seen ak ak seen yelleef la woon ñu rey leen ngeen dem di football takku leen brassard ak yu ni mel damay expliquer lan moo waral loolu mënta am drap euh, brassard noir boobu lu tax équipe nationale mënu ko takk parce que équipe nationale du Sénégal bu ñu fàtte dañ leen tënk tënk biñ leen tënk mooy Macky Sall dafa instrumentaliser li nga xamante ne mooy sport bi euh, teg sport bi comme loo xamante ne pour nelawal sénégalais yi la mu jaral ko coupe d'Afrique yi ngeen fi gis nii yëpp euh, catégorie bi ci gën a mag bëcc bi ni gën a ndaw lépp luñ fi teg dañ ko raafle jël ko dafa am nag benn géopolitique bu nekk ci wàllum sport bi ngeen comprendre ki nga xamante ne moom mooy Gianni di président fédération internationale de football FIFA ñëw na Sénégal kooku bi mu ñëwee suñu pétrole bi nekk diggante Mauritanie lañu yabal mu ñëw di ko lijjanti ndax boo xoolee ay biroom ma nga nekk fële nga xamante ne Qatar te Qatar pétrole bi nga la Total Énergie am kat Qatar daf ci am 5 pour cent boo xamante ci wàllum euh, capital bi mu ci am mu ay milliards milliards milliards donc loolu équipe nationale du Sénégal bu ñuy football fédération sénégalaise de football ka nekk ca bopp ba bokk ci comploteurs yi ministre des sports bi bokk ci comploteurs yi Macky Sall mi président du Sénégal nekk ci comploteurs yi boy yi nekk équipe nationale mënuñu ñëw foofu di takk ay brassard noir loolu mënta nekk ñoom kañ ñoo waroon comprendre les enjeux ñu convoqué leen ñu ne duñu ñëw ndax suñu réew li fa nekk du justice loolu lañ leen mënoon comprendre mën nañu décliner li nga xamante ne mooy convocation bi waaye bu ñu xësee ba ñëw fédération bi encadré leen booy dañuy fàtte li nga xamante ne mooy euh, mooy mooy intérêt Sénégal parce que foofu dafa am lu leen di tënk li ñu mënoon def rek mooy refus de de venir def li nga xamante ne mooy motif suñu réew dañ fay rey ay nit ndax président beeg la ca nekk la ca nekk yépp donc nag enjeu yi nekk ci li nga xamante ne mooy wàllum football bi rawatina Sénégal compétition yi ñu fi jël yi ñu fi teg ñu jël ko. amna lu lalu ci souf bien vrai que boy ils sont talentueux mais Macky Sall dafa jital lol di ko politiquer ndax suñu pétrole bi muy bu ñu jaay mu wara kinga jaar Mauritanie lolou ki nga xamantene moy président bi nga xamantene mo nek FIFA koku mo doon dox lolou kon lolou lañu wara comprendre bu baaxa baaxa baaxa baax ne Macky Sall mo nek ci ginaaw li yépp té boy nek équipe nationale du Sénégal da ngay xol Macky bi mu ñëw Aliou Cissé la menacer ne ko résultat dama lay dax. Aliou Cissé doomu Casamance la mu ngi dëkk HLM Nema Aliou Cissé mok Ousmane Sonko danaka ay dëkkandoo lañu mës ngeen dégg mu génn àttu ci wax ci li Casamance ñaata boy ñoo fa nekk doon ay Casacé Sadio Mané quelle que soit la situation est-ce que mës ngeen leen gis ñu refuser bañ ñëw convocation pour indi ñëw lu jëm ci peuple bi te pourtant biñu jëlé Coupe d'Afrique bi peuple bi ñoo génnoon di leen soutenir peuple bi de tout bord ñepp a génn teeru leen donc ñom bu dee alal yor nañu ko bu dee notoriété Macky Sall mun leen yóbbu foo xamante ne yeggatuñu fa te bi ñuy galéré fii yàggul booy yi ngay gis équipe nationale ni ñëpp bi ñuy tukki fii ci kaw bi lañ ñu fekk ñu dalal leen fii xam leen bu baax a baax yar leen ñoom nag tey jii bu ñu demee ba gis ñi leen fi jiitoo nekk ay ancien nekk fii ci kaw bi yor lu nekk ak lool ak loolu toog di défendre le pays ñoom ñu ñëw yàlla dénk leen ay centaine de millions waroon nañu def lu gën a yomb mooy def benn acte fort acte fort boobu mooy refuser li nga xamante ne mooy convocation ñëw équipe ñëw équipe nationale. parce que nag li ñu li leen dal noonu liy dal sénégalais yi réew yi nekk Europe bu ci daloon benn réew dootoo gis gisati kenn di ci nekk di di di di naan da ñëw di wuy sa équipe nationale. Ukraine bii nga xamante ne donc songoon nañ ko dëkk yi nekk Europe yëpp dañ bu ñuy football dañuy jël drapeau Ukraine teg ko seen kaw donc pourquoi lu xew ci réewu tubaab yeeg réewu naar yi africains yi di indigné wu lii xew seen réew ñoom ñu toog ne ci cell lool du yoon moo tax jour équipe nationale yi waru ñoon répondre li nga xamante ne mooy appelu convocation bi ñu leen woo mais nag dañ leen tënk ñoom ñëpp dañ leen tënk ndax Macky Sall dafa politiser affaire bi moom ak mattar Ba suñu petrole bi nekk diggante fële nga xamante ne Mauritanie ñoom ñoo ko lewal ba teg gazoduc yooyu nga xam bëgg nañ ko teg pour transformer transporter suñu gaz beeg pétrole bi nek euh, Saint-Louis ak yu ni mel ñuy favoriser équipe nationale du Sénégal actuellement lolu la gay wara comprendre bu baax a baax dafa am lu ci lalu ci souf ndax légui président nek nekk ci àdduna bi yëpp sport lañuy naxé naxee seeni réew sport lañuy naxé seen réew rawati na nak Sénégal Matar Ba arène bi gis ngeen ne Chine dañu ko mayon mu taxaw ne 32 milliards lañ ci def ana 32 milliards dañ ko sacc ki nga xamantene stade bi ñu tek sur surévaluer ko stade Diamniadio boobu moo gën a cher stade de France te matériaux yi France fii la gën a chéré main d'œuvre fii la gën a chéré ñu jël nag caay surévaluer affaire xaalis bañ ca teg yëpp dañ ko sàcc donc ñoom noonu la ñuy enrichir woo Macky Sall sport bi mu teg équipe nationale booy tweet yi ñuy def kenn ñemewu ci wax lu bokkul ak lu Macky Sall wax capitaine équipe nationale du Sénégal bi ñu fi sàccee téléphone am ñoom biir palais laa leen waxoon ne dañuy boo yëpp dañ leen di xool xool ndax ay patriotes lañu ñu topp leen ñoom ñëpp dañ leen li ñuy jàpp ni ñu tënkee sénégalais yi la tënkee les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal moo tax révolution bi sénégalais yëpp ci war a jug àndandoo ko une bonne fois pour tout ñu xeex ko daaneel nguuru Macky Sall parce que dafa bokk si jaamu yàlla Macky Sall Sénégal mësta am mindeef bu ko gën a yées te du ko amati ku gën a yées Macky Sall Sénégal duñ ko am te dootuñu ko amati yàlla dootul wàcce mindeef bi gën a yées Macky Sall biir Sénégal loolu la ñu comprendre moo tax ñu war a taxaw continuer li nga xamante ne mooy carence bi ñu ko teg ak lii nga xamante ne ni mooy pression bi ñu ko teg ba daaneel ko parce que nag euh, les joueurs d'équipe nationale bi Sénégal amul kenn koo xamante ne di nga wax lu bokkut ak li Macky Sall bëgg parce que moom mu leen tënk fédération bi euh, ki nga xamante ne mooy Augustin Senghor ku ñëw mu jëm la fexe faagaagal gis nga ñaata mandat la fi toog moom tamit pare dafa bokk ci système bi nekk kaaf ci de suite ndax pétrole bi nekk Sénégal loolu moo tax ñu taxawal favoriser équipe nationale du Sénégal catégorie yëpp nag catégorie yëpp dañ leen favoriser bu ñu demee ci tournoi yi boo xoolee ni leen di traité ak yu ni mel loolu yëpp gars yi dañ ko war a comprendre xam ne foot business la ñu nekk di def te nag amul lenn loo xamante dafay profiter l' état du Sénégal alal ji ñu ngi koy yóbbu équipe nationale du Sénégal raay yi mu am lan la jëriñ sénégalais jamono ji lan la leen jëriñ ñu ngi rey seen i doom yi suba ngoon kenn waxu ci dara donc loolu la ñu war a comprendre xam ne xeex bi dañ ko war a acté continuer résistance bi nga xamante ne moom la ñu nekk fexe ba Ousmane Sonko këram ñu barricadé ko loolu la moo ne woon dinaa ñëw waxtaan ak sénégalais wax leen lan mooy enjeu yi nga xamante ne équipe nationale du Sénégal li ñu bëgg a def duñ ko mën a def parce que duñ fi mën di takk ay brassard noir parce que fédération moo leen ko dul permettre fédération bi complice la ci li nga xamante ne moom la Macky Sall nekkee di teg sénégalais yi ñu comprendre ko loolu am na nag ñoo xamante ne comprendre les enjeux boo waxee ñu ne ah football bag politique bi bokul alors que c'est lié football bag politique bi bokul c'est lié li nga xamantene ni moy Mbappé waron dem fële nga xam moy Real de Madrid lutax demul parce que Emmanuel Macron moo dem Qatar moko fi téye lolou yëpp dafa bok ci ak yenen dekk yi ko comprendre xam nañ fi affaire yi ki nga xamantene mo don sep plater nekkon FIFA magu yi mu def ba jaay coupe du monde bi FIFA mais américain dañ ci dugal sen CIA FBI ñom ñep ñu daaneel ko daaneel nii donc li ñu jàppee football caaxaan la gars yi moom la ñuy nootee seeni réew nañ ko comprendre noonu kon ñu ngi leen di dox di daje beneen yoon euh, di leen ñaanal ci yéen jaa ngeen jëf